ngir ngeen di mën di jot suñu vidéo saa su nekk da ngeen fi nga xam te ni mooy Bichri Airport TV ku fi doyloom xelam na ma fëkkal bigam bind ay way ndegam kafa tuuba la gëm ku fi doyloom xelam na ma fëkkal bigam bind ay way ndegam kafa tuuba la su ma baaxee di gor ni bërit fay ko bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfam su ma nekkeeb jullit mën a jël ay këyit di ci sàddi bayit dulu dul ay mayam kiye tee diine fay kiya docteur di rey bu du kon moom ba tey du nu jaamu këgëm batu bab di tër dugg kër yi di wër nara dekkil badar ku ne daw dem këram lagaroon bakkanam gën a yeesal ngëmam joxe lépp ak jëmmam ni li ngeen nar du am sama mbër du bu ragal tire nañ koy fetal ak i nag yu nu yafal bëgg a jël bakkanam te taxul fi di wa dem taxuloon koo wedam ci di yoon nenam dëgëral pas-pasam dafa kàbbar ci ndox bato nasaraan sëfëx ñu ni tey day ma bëx bile bis mooy bisam lambaraana ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoŋ ba mu delsee la tong ñane woon ci wetam Madu Bamba di mbër jàpp nasran si tër te génnewul gowar li rekk doy na ndam li mu wayyol nenam gisa guñ cim kemam te ëdël dootu am ku ko dab ci waxam ku ko booleek mbërëm bu nu peesee nga xam ni ka daani bañam du ka toogoon këram ku ko di nga torox fii ku fi lal der ci ndox bu ca tabbee suruxu ñu dëjël ko dëjëm ba fi diiney wañax dëkk bëx bëx di bax ñafi woon gumba tëx ku ne dàkku pour xam ba mu neexee ñu ñëw bëgg ku féete kaw ku ne naa maa fi raw di fa gaatu dënëm mani noppee fi war ndax la sa mbër wax ca ndar mbind maa ngee du far ku fa dem teg bëtam fu fi lëg macce tol coya def ab dogal fu fi jullit di tal julli war ko gërëm Madu Bamba di mbër jàpp nasran si tër te génneewul gobar li le rekk doy na ndam mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am nga dam mani 18 safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am nga dam